doxu ñaxtu gi nga xamante ne ni ki tey ji ci suba diplômé yi nga xam ne nag dañoo am eh, wàññeeku wàññeeku daal dinañu ko doon amal ñoom nag la ñu bëgg moo di ñu dugal leen ci fonction publique bi ñoom ñoom handicapé yooyu di xam le ni lu jëm ci wàllu carte égalité des chances nag poudre la rek maanaam dañ leen ko rek daal di naxe waaye amul benn njeexital ci seenu ka nekkin Tidiane Diallo dañoo bëgg ñu duggal leen ci fonction publique bi moo war a sax handicapé yi wàccoon ci tali bi ngir wone seen naxar. dañoo jàng ba pare am ay lijaasa comme ni ko ñeneen ñuy defee mais dañu gis ne euh, dañoo tijjil valide yi ay concours ñoom ñu mën koo def ñun mënuñoo def concours yi et aussi ñu bëgg ñu jël ñu euh, ñu recruter nañu dans la fonction publique. nous voulons que l'État réussisse immédiatement pour nous faire entrer en la fonction publique. ñoom sax dañoo jàpp ne carte d'égalité de chance yi ay naxaate kese la. carte yi moom amul benn njariñ euh, paracétamol sax mënu ko cee am donc kon amul benn njariñ. situation bu métti la ñu nekk ba tax na ñu ngi interpellé njiitu réew mi. Euh, damay woo le président de la ko ne recruter handicapés dans la fonction publique. on veut que que nous entrons dans la fonction publique. suñu indiwul saafara ci seen doléance yi ñoom sax nee nañu dañuy wàccaat ci tali bi. fi fi daaxil fi daaxil république fi Sénégal. Euh, nahnu euh, nuridu an nadxula fi euh, markazi fonction publique alaaji kon muy yaakaar gu yàkkeeku donte ni am nañu jafe-jafe jàng nañ ba am diplôme waaye amuñu fu ñu liggéey seen seen kàddu gi ñu wax ni état bi daf koo nammul bu ko nammoon def na ko dina jafe weddi tataay mun nañu demander ñi moom Tata yi donte privé la ñu utal leen benn quota société Dakar Dem Dikk ñoom ñoo ko moom. imaginer li nekk ci ay bus Dakar Dem Dikk ñu mënoon leen a di ñiy dagg ticket yi nu ngeen leen di woowee. receveur ñaata lañ ci mën a recruter ñaata ci quota la ñu mën a demander waa Tata yi ñu jël leen ak yeneen ci opportunité yoo xamante ni bi am nañu gis nga carte boobu ñu wax noonu euh, ak luwaa d'orientation yëpp ay appellation la ci wàllu tubaab bu neex ak gëlëmal ki jàngul. gis nga bu ñu nammee pour aider nit ki nga xam ne loxoom jotul ginnaawam ki nga xam ne handicapé la ci wàllu cër état xajul ci régler seen situation bari nañu bariwuñu wuñu yomb nañoo lijjanti mais nañ def sax benn effort xam nga am na jamono li ñu doon laaj mooy am accès ci édifice public yi mais bi Abdoulaye Wade commencé def ay pont yoo xamante ni bii commencé woon ko fii ci buntu foire pont boo xam day am escalier beneen côté bi amaat côté boo xam ba amee pousse-pousse mu faa jaar côté boobu kaasatuñu ko ñoom bu njëkk loolu lañ doon kaas mais kaasatuñu loolu mais maintenant ñi am diplôme ñu dimbali leen orienté leen parce que ci ñoom am nañu am diplôme ñoo xam ne xam nga lu ñu jàngi artisan artisan artisanat boo fa demee tey ñu bëri am nañu seen i atelier bopp ñi ñu ngi ñëw ñu ngi def leneen def nañu lu ñu mën mais li ci des nag faaw état accompagner leen mais mu ànd ak politique boo xam ni dafay sincère nag. dafay dëgg mais sax pour ñu yegg ci jafe-jafe mais bu fekkoonte woon ne ñuy liggéey ñoom daañu trouver benn solution boo xamante ni bii bu ñu xëysee daañu mën a yëg ci bu ñu toogee benn place liggéey ba seen waxtu wàcc jot ñu daal di wàcc gis nga politique bi ñu leen dig ni moom lañ leen bëgg jàppale ci wàllu politique dafa desee dëggu carte égalité des chances dafa desee